Saint-Louis du Sénégal mu nekk dëkk bu làq taarix bu baax waaye itamit mu am lu am solo lu nekk ci dëkk bi lee sa touche personnelle Saint-Louis nekk ville touristique waaye itamit nekk dëkk boo xam ne ku ne dafay bëgg ñëw umpateeku lan moo nekk file équipe bu leeral la ci émission bii di xam sa réew dugg ci biir koñ yi gox goxaat yi tamit di leen woon yoonu Saint-Louis koñ bu nekk na mu tudd waaye tamit toog ak yenn koñ yu gën a fësti ci saint la ngir fësal ko yéen téléspectateur ngeen mën koo jariñoo ba ku nekk fi mu mën a ne mu xam cosaanam dëkk fan la daal di jógee. wax dëgg yàlla fii mooy HLM cité waaw fii mooy HLM cité Lamine Gueye parce que HLM ñetti HLM la dafa am HLM cité Lamine am HLM 2 am HLM 3 fii mooy HLM 1 HLM moo nekk ne HLM 3. léegi nag fii ni ñuy dugg see nag eh, waxtaan nag eh, benn notable boo xam ni si quartier bi na dëkk ñaanal ñu waaw eh, maa ngi tudd Pape Omar Fadior dëkk HLM villa 193 Euh, nekk membre aussi si benn association bu ñuy wax comité d'initiative pour le développement du quartier muy CIDHLM voilà donc maa ngi dëkk naa fi depuis euh, vers les années quatre-vingt ba léegi maa ngi fi macha allah. Euh, merci question bi moom kontaan naa ci trop pour wax leen rek ne HLM ñetti cité la HLM ñu koy woowee site Lamine. HLM 2 mooy bi ñu nekk nii ñu ko doon wax HLM yu bees yi ci diggante bi am beneen loowu HLM bu am muy HLM trois donc nekk euh, côté maison de l'île euh, ñetti HLM yi nag su ngeen xoolee HLM 1 muy cité Lamine ñu ngi ko construire vers les années 1960 euh, après le cité bii ñëw HLM 2 vers les années 76 en 2000 la ñu construire le dernier lot à peu ñu ngi toll ci 478 maisons au niveau des trois HLM euh, quartier bi nag à peu près am na 2000 habitants euh, ñi ci ëpp nag ay ndaw lañu ñi ci ëpp ay ndaw lañu comme presque dans tous les quartiers dans tout le Sénégal xale yi euh, seen lim am na solo trop ci quartier bi quartier bi nag ku wax HLM xam nu mu meloon avant HLM ni mu meloon mooy cité la woon di am ay jardin public am ay allées ñu koy wax vraiment quartier résidentiel Euh, waaye nag euh, xam nga comme HLM la bi en société bi demee ba retiré wu mu nekk léegi quartier bi nga xam ne nit ñi ñoo ko jël en charge si la xaw a dellu mel ni comme tous les quartiers donc euh, ndax nit ñi xëy na entretien bi mu laaj ak yu demee noonu da doon xaw a sooxe tuuti donc yu bëri yu ñu amoon léegi ñàkk nañ ko mais nag ci wàllu développement également yàgg na am ay association yu fi taxaw ay mag ñu fi nekkoon tamit euh, dañ si cité sax dem si yàlla Ndiaga Touré doon fi délégué de quartier ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp euh, Abdou Konté Pa Chérif Sall donc am na daal suma limee daal damay euh, du ma matal mais am na si ay mag yu bari yu fi nekkoon yoo xam ne taxaw woon nañu quartier bi ginnaaw loolu tamit amoon na ay jeunes tamit yu fi nekk comme association jeunesse action développement ñoom Pape Moussa Sall tamit nekkoon nañ ci ñun it tamit nekkoon nañ ci ASC HLM aussi taxawaay bu am solo ci wàllu nawetaan ci wàllu football euh, yooyu yëpp amoon na fi mais ku ci nekk nag bay nga sa waar def nga lu nekk ci quartier bi pour quartier bi développé mais nag comme difficulté yi moom du jeex euh, récemment nag am na ay jeunes aussi yu jog tudd comité d'initiative pour le développement du quartier jël relais ñooñu ñëpp am nag benn taxawaay bu am solo buñ fi am euh, ci biir quartier bi ba nit ñu bëri gis ci seen bopp nit ñu bëri gis ci seen bopp mais foog naa succès bi tamit li ko def mooy euh, dañu créer benn groupe WhatsApp avec les nouvelles technologies da nga ciy profiter créer ko nit ñëpp adhéré ba nga xam ne tey ku dëkk HLM nekk Saint-Louis wala nekk bitim réew benn information du la rëcc ci HLM ndax lu am foofu lañ koy dugal euh, association boobu nag jóg pour réabilité defaraat quartier bi delloo ko fi mu nekkoon bu nekk nag benn projet bu ambitieux boo xam ne am nañ ko ginnaaw nag ay activité yu ñu doon def parce que depuis 2019 la yàgg nañ fi def ay set setal ay affaire solidarité euh, action sociale dimbale école yi dimbale élèves yi ci quartier bi si ay dons fourniture yu ñuy joxe chaque début d'année scolaire euh, jàppale nit ñi Covid bi jàppale leen bu baax a baax a baax a baax def benn campagne bu am solo Euh, bi loolu weesoo nag ñu gis ni que euh, war nañu réhabiliter suñu espace yi ñu fi amoon parce que ku gis ku wax espace léegi ak nit ñi ni ñu soxlaa dëkkuwaay ak ni ñu soxlaa yokk seen ay kër ah ay risque la nga bàyyi ay espace yu vide parce que loolu soo ko bàyyee rek nit ñi dañuy am tendance def extension seen kër yi ba pare euh, occupation anarchique ay cantine nag ay yu demee noonu parking yu ñu amoon mënat amatuñ ko oto yi léegi dootuñu gaare foofu di yéeg di yàq ale yi ci biir quartier bi ñu jóg nag ñu ni loolu il faut ñu taxaw ci si la ñu am nag un projet de réhabilitation des espaces publics lu tolloog à peu près vingt espaces yoo xam ne dañ ko bëgg delloo si waat defaat banc yi defaat garab yi euh, projet euh, de réhabilitation des espaces publics su ngeen gisee t-shirt bi ma sol sax moom la ndax euh, population bi dañu adhéré ci projet bi dañu adhéré ci projet bi gëm ko pour un budget de vingt et un millions à peu gis nañ nag toutes les autorités de de cette ville municipalité yooyu yëpp décider nañu jàppale ñu accompagner ñu bon ñi ngi xaar mais ñun dañu ni ñu xaar loolu rek c'est-à-dire que il faut contribution population bi ba pare nag vraiment nag projet bu ñu euh, tëgg la tëgg bu rafet sax parce que même le plan de financement dañ ko génnee population bi ñaata la ci war a joxe à hauteur de huit millions quatre cent mille euh, euh, partenaires yi douze millions et quelques muy vingt et yi ñu soxla boobu ba léegi nag adhésion yi commencé na contribution volontaire yi dangay gis ay famille par famille yuy joxe cent mille francs ñuy joxe deux cent mille ñuy joxe cent cinquante mille pour defar quartier donc euh, actuellement nag mooy projet bi nga xam ne moo nekk en cours am na commencé nañ ko sax parce que parking bi nekk sama buntu kër nii mooy parking bi ñu démarré def nañ cérémonie lancement bi euh, vraiment daal adhésion population gis nañ ko mais ñi ngi góor góorlu tamit ñun nag xëy na sax xaw nañu commencé nekk mag tuuti mais ñu ngi accompagner les jeunes qui son très dynamiques pour vraiment ñu atteindre objectif yooyu parce que ku nekk sa quartier daal ñun dañu gëm ne développement c'est au niveau local c'est-à-dire que su ku nekk développé woon quartier am ville bi développé su ville bi développé Sénégal développé Sénégal développé Afrique développé donc euh, loolu si mag ñi lañ ko gisee parce que maa ngi leen doon citer léegi ay vieux yi fi nekkoon yoo xam ne seen taxawaay dafa dafa dafa ràññeeku woon ci biir dëkk bi sax waxuma sax HLM mais ci biir Saint-Louis bon ñun tamit bi ñu gënee nekk xale di football nawetaan tamit terewul woon ñu amoon ay ambition aussi doon taxaw suñu quartier dem nañ nag benn moment xaw na am tuuti rupture te loolu su ngeen xoolee c'est un peu partout ah c'est un peu tendance bi moo doon nit ñi defatuñu woon loolu cest à ñu bari dañuy jël ay raccourcis pour pour euh, dem di wuti lu gën a sori ñun ñoo ci xaw a gën a nekk mag tuuti mais suñu rakk yi tamit ñu ngi ciy tàggat pour ëllëg ñu mën a continuer parce que def lii yëpp ba pare bon ñun ñu dem mu arrêté ah, kooku kenn gënalul kenn donc ñu ngi ciy ñaax xale yi xale yi tamit ñu ngi ciy topp parce que association bi y a beaucoup de jeunes d'ailleurs jeunes yi ñoo ko initié sax association bi ay jeunes ñoo daje waxtaan wooñu ñun ñu ñëw gunge leen donc foofu suñu xel dina dal xam ni continuité bi dina am parce que man dama gëm nii gox yi ku si nekk soo développé rek dëkk bi développé parce que tey projet bii ma def nii man projet bii dañ ko def yëpp tëggu ko ba mu normal mais dañ ko dugal sax si réseaux sociaux yi c'est-à-dire que dañu bëgg suñu yéene mooy ku nekk na si jot ku nekk da ko def parce que nekkuñu en concurrence ak kii que ce benn quartier mais dañu bëgg quartier yëpp développé en même temps tey même dañuy invité émission rajo ñu dem bien que nag sensibilisation bi dugg na ci quartier bi quartier bi adhéré na mais suñu demee si rajo bi c'est pour que ñeneen ñi dégg ko ñeneen ñi dégg lu ñuy def xool li baax si li ñuy def ñu jël ko ñun ñu xool lu baax si li ñeneen ñu def ñu jël ko parce que loolu rek mooy def développement. xaaruñu état xaaruñu euh, mairie dañu am initiative dafa suñu projet waxtaane ko waxtaane ko ak population bi ba ñëpp adhéré si ñu dem nag seeti ji ay kilifa informé leen waxtaan ak ñoom parce que tey population bi dañuy jël seen alal dugal si versement yi commencé na bu nu commencé mairie bi mën na si jàpp état bi gis loolu ñëw jàpp si mais loolu dina dem ba xam ne bu loolu amee daa gis ñeneen ñi nga xam ni daanu jël seen initiative nekk seen biir quartier ni am nañu idée pour développer seen quartier xaar ñu def buñ ko defee autorités yi daan ñu gis pour ñëw dooleel ñu parce que nit waroo xaar si dara ni da jëfe soo jëfee rek yàlla si boppam moo lay wan ay yoon wan la ay bunt ba ñi nga xam ne gis nañu développement gis nañu ni yaa ngi liggéey liggéey bu am solo jëmale ko si askan wi jëmee ko si population bi ñoom de par la force daanu ñoo jël si dugal seen loxo. mooy nettoyer carte yi. gis ni bon koñ bi y avait toujours de la saleté fu nekk daan am saleté et puis encore bon pavé bi ñëwagu fi woon alors bi pavé bi ñëwee nag j'ai dit état bi def na li war a def ñun ñun a def li des entretenir pavé bi di ko nettoyer quoi waaw bon man bee toogee nag je me suis volontaire di ko def di porté avec vos moyens avec vos propres moyens propre moyen moment boobu man maa daan toog di jënd ay bale yooyu yëpp di nettoyer ba ñëpp xam ma si waaw bon léegi nag civisme euh, parce que xam nga li gën a neex moo di ngay def lu baax forom bu ñu xam ni yow yaa yi def lu baax déjà loolu rek loolu loolu rek sag na ko tu vois bon et puis koñ yu bëri léegi ñu ngi commencé di changer comportement parce que comme que koñ bi ñoo ngi koy jëw-jëw bu rafet bon message bi mu ngi jàll si yeneen koñ yi foog ñu Saint-Louis c'est ñun ñoo ko mën a entretenir tu maire bi mi ngi liggéey mi ngi def li mu kii ñeneen a ngi def li nu mën mais ñun nañu def li nu mën tu jàpp si ñun ñëpp mu mu baax ko parce que ça fait dama tàmm di ko wax ça fait plus de quarante ans da nga daan dégg ñu naan lëkk en dehors de Kaolack Saint-Louis était la ville la plus sale et puis da nga daan toog gis ay tubaab yu bëggoon ñibbi si mais bu ñu ñëwee dëkk bi gis leen fii delluwaat alors loolu lan war a dindi nag faciliter le retour des autres quoi tu parce que am na ñu bëri ñu bëgg ñibbi si waat mais conditions yi ñu fii fekk moo dul loolu noonu tu vois waaw gis nañu Sonaged que amul la mën a apporter tey man li ma leen mën a apporter maa ngi leen kay apporter nii si koñ bi mm-hmm. maa ngi koy def si koñ bi te ñëpp xam nañu maa ngi koy def si koñ bi. Ah. moi je vois que ñoom waa so ñoom seen bopp sax xam nañ loolu tu man daal li mu leen di conseil moo di fi ñu teg seen tànk foofu la buñ ko teggi quoi waa Sonaged parce que xale yi dañuy bale ba tàyyi bu vraiment dëkk bi moom boo waxee koo wax mun la dëkk bi léegi dafa set en dehors de la langue de barbarie ak yooyu ñoom ñoo dese yooyu daal tu vois te côté boobu aussi war nañu góorgóorlu waaw man Idrissa jàlla laa tudd Euh, je suis éducateur euh, artiste comédien metteur en scène de théâtre euh, di gérer benn association bi ñuy wax univers de l'enfant c'est une association de défense des enfants et d'appui au développement communautaire Ndar moom vraiment valeur yi ñuy gën a am mooy xam seen diine xam seen aada ak seen cosaan ek tey dal ubbeeku ba pare euh, di muñ di muñale di muñ di muñale surtout Saint-Louisien Saint-Louisien moom mun nga ñëw da mujj gi des fois sax da ngay foog ni tapet la ñu ndax muñ gi ñuy muñ ak muñale parce que dañu am ouverture boo xamante ni bu extraordinaire moo tax euh, xam nga soo jàngee alxuraan nga xam nga xam diine euh, jàng tubaab da ngay am ouverture bu rëy da am ay connaissances yu rëy moo tax a chaque fois da ngay gis doomu ndar yi dara fëkku leen dara fëkku leen message message bi la lancé doomu ndar yi mooy que ni ñu gën a gëm seen bopp xam ni euh, ay doomu ndar lañu ay doomu ndar lañu xam nga dañuy wax waa ndar amul dañuy wax euh, doomu ndar moo am dañuy wax ni xam nga soo seetloo Sénégal doom doom bu ñuy wax doom doom doomu ndar rek la ñuy wax ñu xam ni ndar euh, moom la ñu am ndar mooy sunu lépp ndar mooy sunu yaay mooy sunu papa Ah, ñu fonk ndar xam suñu bopp valeurs yi nga xamante ni suñuy parent inculqué nañ ko ñu préserver ko gérer ko ba nga xamante ni bu ëllëgee duñu taxawee ak suñuy waajur wala suñu mag dana waaw Adama Kane Diallo Euh, nekk président conseil communal de la jeunesse nekk vice président conseil départemental de la jeunesse nekk comité exécutif conseil régional de la jeunesse nekk conseil municipal yore lépp lu jëm si wàllu commission participation citoyen et service aux citoyens nekk tamit président mouvement Ndar sa Kalam nekk tamit coordinateur départemental Givon projet bu monsieur Thionia nekk tamit si comité exécutif national yore lépp lu jëm si wàllu social ak si action sociale euh, nekk tamit part euh, point focal partenaire West Africa nekk chef d'antenne NCA assurance bi nekk fii au niveau de la zone mais émission xam sa émission bu am solo la émission la bi nga xam ni émission bu ñuy war di seetaan la émission la bi nga xam ne buy jàll yeneen dëkk yi dañ koy bëgg muy jàll parce que émission bu extraordinaire la parce que foofu damay profité remercier équipe bi nga xam ni moom moo ko géré mu yow mii monsieur Kane di gërëm tamit aadama bi nga xam moo seen correspondance fii di def liggéey bu extraordinaire liggéey bu am solo di gërëm seen directeur général bi nga xam ne ba ngeen amee idée bi proposé ko la direction direction de leeral dañ ko nangu moo tax tey nga ñëw ndar depuis sa matin ñu ngi ànd ak koor gi dem si quartier yu bëri pour waxtaan ak ñoom si émission xam sa réew ku nekk wax sa cosaan wax sa quartier nan nay dundee si wàllu taxawaay je pense que man mi nga xam ne nekk naa doomu ndar am Saint-Louis gëm Saint-Louis parce que may wax man Saint-Louis moo sama parti politique lu nu am Saint-Louis moo ñu ko gënal demuñu bitim réew demuñu dara lépp lu nu am rek dañ ko bëgg amee suñu dëkk bi si wàllu teraanga ak lu mu mënti doon kon je pense que tey boo leen ñëwee fii def émission bi man mi nga xam ne maay Adama Kane du ma dara ngeen boole ma seen émission bi ànd ak ak man war naa gën a góorgóorlu xam ne nit ñi ñu ngi may gën a bàyyi xel si wàllu taxawaay kooku maa ngi leen si remercier bu baax a baax a baax a baax doomu nda ñu ànd bokk day ak bàyyi di xàccandoo di dóorandoo parce que Ndar dëkkum histoire la dëkkum xam-xam la dëkkum bu dal la dëkkum la bi nga xam ne yàlla dafa am lu fi def ku ko fonk di nga am yokkute mais ku ko fonk tamit di nga ko réccu di nga ko regret di gërëm tamit monsieur Kane si liggéey bi ngay def si si Leral TV si sa woyefte sa baaxaay sa yar ak sa di remercier tamit directeur général Dame di koy ñaanal yàlla tamit fu mu bëgg yéene jëmale ko leeral yal na ko si yàlla may ndam yàlla may ko si sutura ba adduna bi yëpp kuy taal di leer leeral TV di koy seetaan bu baax a baax yéen a ngi si te yéen a ngi si voie i leen di gërëm bu baax jërëjëf. xale na lu mu tuuti tuuti xam ne na kilifa lu mu tuuti tuuti xam